amul genn yërmande ci askan wi te nag war nañoo dimbali nit ñi ci lu jóg rek ñu ni crise bi la seen manqué manqué yépp corona ak Ukraine lañ ko jiiñ est-ce que corona ak guerre Ukraine bi tax na Macky Sall wàññi lii ne ci keesam ba nekk ca pale est-ce que ay ministre am ak i directeur am état bi wàññi na li mu leen di jox ak li muy def ci ñoom déedéet moom kay askan wu lottu bi kott mooy gàddu lépp courant bi seer essence ak gasoil ne ko danduma lojaas bi fa mu ne woon jógu fa bu dee sax wàllu gënt ay tey te fii lañuy fi tànqal ak wàññite wàññite dem leen marché xool benn carotte deux cent lay jar doomu tamaate deux cent ñii ndugg ñemeetuñu sax laal njaay école ubbi na te wayjur yu bëri amuñu lu ñu inscrire seeni doom ci école yi ba léegi traité gerte gi ren boo sàggantul campagne bu bon lay doon ndax cent milliards yi Macky Sall ne woon sax ci la koy def matewul ba léegi fu baykat yi jëm rek lañu xamul waxambaane yaa ngi dugg ci gaalu looce yi di xuus ci géej gi teg seen bakkan ci xottu gerte ngir wuti lu tane feneen ni gone yi jëlee gaal yi léegi gàcce la sax ci Macky Sall ak nguuram xale yu góor yi des ci réew mi ku ci utul Jakarta yaa ngi l'agressé ñàkk kaaraange gi ci réew meeg woyutu gi yokku gi mu ne su ko ñàkk a méngaleeg coonoy ndaw ñi li ko gën a garaawal nag mooy bu ñu gisee ni ñi yor nguur gi di dundee seen yaa njaay seeni wota seenu pasar pasar milliards yu ñu ne alalu réew mi la te ñu njort ni des ko randal te enquête am ci mbaa enquête war caa am kañ lay leer milliards yu ñu def ci xeex coronavirus te ñu ne daa mel ni daa am ñu ca xus fell ca xaalis boobu mënoon naa sauver ay bakkan ci l'hôpital yi mbaa gënal ay dund yu bari ci askan wi yorin wu sell wu alali réew mi